kono atalam bankola president oti walam jamati his excellency the president yaya ajj jammet mangi nuyu he the vice president of the republic of the gambia ajo dr asatu njai sedi mbala nomalan ko fanan kontonna mu yalon ko walam vice president oti ajaratu dr aisatu njai sedi mangi nuyu the speaker of the national assembly mbe ñatonko fanan konton na mu yalon ko atalam diyamula bati nan député bungo fanan to mangi niu the mayor of banjul raji life mu yalon banjul sate la jang e ka fo mu ye alhaji ablay ba mangi niu minister fatou fay ak minister as maxi nga xamne ñoy liaison officer banjul benna loison officer nu kontonna momo ajaratu fadla men fay anen alhaaji masiga yi mbe be kontonna itolle be marare na politiko ko banjul sate ko ngi minister si nga xam ne ñoo fi toog ñépp mbe honorable minister nu fanan kontonna munu yalon koy bebe siri ñimbe ngoto jak maa ngi nuyu the minister for presidential affairs secretary general head of the civil service mbe ñatonko fanan konton na mu yalon ko gambiyala dow kuulanu be a mi la ñatonkote anda tamo kilugol fanan ɓe mala ring président ola haajo naala kuon beela magen yu njiti am forces am forces yeppi mbenna soldarol la ñatonkonu be konton na munu yalon koye ɓeɓe maɓerin fee jak magen yu honorable members of parliament mbe mbenna député nu fanan be konton na munu yalon koye ɓe siriña député ɓuŋoto e maa ngi nuyu ñépp ku ma fàtte nga balal ma axa alisa haka boy ñe mbe kontondi roke la momo ronde yaalo koy be be ngoto nag duma fàtte suñu jigéen yi banjul yi bari bari dum nte ñinala na banjul musoon APRC APRC great la parti bu mag la ARC mu parti leti parti yo mu yalon ko parti balo wante nak bala ma duga si mbir mi mo wara duga bari jannim mbaduna dunna haajo fango no mu si sijan parce que meyo layba akamulon ko meyo layba dafa ma confuse dafa ma confuse akamulon ko ay no bulaño kono le dindro parce que dama demone be xalaat lo xamne man ko wara wax ntata la fo kuma kama mun ya lon kon lafta ka fo lafta wala fo la non ayen sabaje wante nagen bari hani bi bala ma door si li ma wax jani mbe kumo damu tala lafta mum fo la dina gërëm meyo apply ba nse meyo apply ba fana jayi parce que mu ne wo saabu si kanimi banjul yépp a kamul ko banjul be ñaatin wala si kanimi président jamme anem président jamme ñaatilu ngono ak government bi yépp anem Mansa Kunda bee ak Gambia yépp anem Gambia dingonu bee ti télévision o ñaatilu ngono meyo Ablaye Bane meyo Ablaye Ba ko moom ak ñim àndal yépp APRC lañu ako atani momoronde yaalon koye ma faasa diŋole ti altol beemu APRC le lii man si turi council of elders kontaan naa ci lool te kontaan nañ ci lool na alpha kafo mu yalon ka tele be sirim banjul jan mbe kafo mu nyaton ka yakan wo kumo ayen sewo ayen sewo ayen sewo back parce que dalila jamale wono APRC nim parti yo APRC parti bu mag la ñimmu parti baalet parti bu am njëriñ la si Gambia sakatuma Banjul ando parti yolo mun ya lon kay na Gambia banko kan surtout Banjul saate kono su fekkee ne nag after election immediate after election naatara ɗum carte fayo koola um, président Jammeh président Jammeh taxaw na si kaname télévision si Gambia yépp a loota ya ñaatarin télévision ola bee kono mu téye loxo lay fii aye Ablaye Ba buloo mu ta te loxo Samba Fall fii aye Samba Baal bulu doomu Samba Fall bulu doomu ta jang dama bëgg ngeen liggéey a koye ko laftalaale kam moo kilinte kun kilinte ale bee dengan ya kilingol ale doo ko dama bëggoon liggéey wallaay ba te bëggoon naa yéen ay PRC liggéey ak lay ba lafta bala bi lafta fata moomoronde yaalon koye mu APRC mu dungoleti yettata lay ba kooma ale doo ko gannaaw loolu wo fanan koola xel yaa ngi jaxasoo woon akamulon ko sondomonu wisi wasa wante tey bari bi loolu meyo layba bari bi ite layba meyo layba meyo layba jël na morceau jël na morceau ay morceau le ta jël saabu ay saafunoo ta jël ndox ay jiyo ta ras xol xeli ñépp xoli ñépp si Banjul ay moomoo yaalon koy hakkiloo ɓe nooriŋ waray e sondomoɓe noring aya ɓeeta aya ɓe jankude ni wo safuno ani wo funtola mu wonene mom apsl aprc la a naata muneyi tan ɗi jama moɓe tema wolom ñinti ko a temmeyo lay ba a temu aprc lete kono nak woto wo kan ɗum ñun wa aprc ñun ñi nga xam ne ñooy kilifay si banjol toon mo yaalon ko mo aprc te andu mo alfante banjol saate kono liñ doon mun mun daani ne banjul toujours na sedda banjul wato wato alma sumuyaa kala jang te banjul dafa musdi sedda andum banjul wato waate aɓe sumuyaade na doro looloo tax wo dalilo le yaa tin ku melni president président momu moo ko buggo ko président Jammeh yene dañ ko de tam sax doonu ngay ka ka ka to do la parce que mu wono su toge ganaw toogee na élection da carte fay koola mu daldi si tànga tanga bi aye wuli wo kandi kando kono mu daldi ñu sas akamulun ko embe ah, loolu wo dum ku mel noonu ko woo ñaama lu wax ay kuma woo kuma fo ñun war nañ see jàppa ntoon ñanta woo kuma ka moom mu talal moo tax lay baa wala dalilol yaati na ablaay baa su sobee yàlla na nin sonta ñun ñi nga xam ne ñun ñooy kilifa banjuli fii ntol mun yaa lon mu banjul alfaanu ti te li suñ suñ warugar rek mooy toujours loo xam ne président bugg na mu nekk jàmmi APRC ñun dañ ko jàppa di su xotee ko yuy ñaw di ñaw tey bii moo ñaw nañ ko ba fees su soobee yàlla dañ la jàppale le la président Jammeh wax woto ñimmun ton la ñan ton latin ton mu yaalon ko mu banjul alfanti naatara ko ku lafta wis wasla patio to ton la ñanta wulila na lon lo kamola na kuota na ñoki ñobala na soki ñobala mbe sonnomone ke ngoti mbe tara kuukiloo to na do ke patio la nafa ne kan nasa hel gena ci lo xamne mu la don jaaxal momoran ne kooku yaalon ka ye sondomo wiisi wasanu laftalaali ɓe yaali sondomo on bonde wooto nan leen gis aprc gis suñ di aji président yaya jamme woto alinaka ku kilimati na ke mo kilimati na ñaayelo mo kilima kan wolam jamaati na ñaatan his excellency momu yaya ejj jamme suñ jogee foofu nimbata wooto ndawi banjul banjul la fonden keenu ñu ngi leen a ñaan mbali danila ñu leena a ñaanal mbé duwa fanan kelali ye parce que parce que wa banjul banjul nkoonu amuñ dara luñ wax président jamme iman kuma la soy e ñanta mum fo la président jamme ma banjul banjul fiñ taxaw tay bi bimbe lo ren mun to jang moy bunti banjul jannom banjul bunda abat, soo fi, fi naa leen ñu dulaa jang ya nga gis national assembly bu es bi nga xamné mu ngi ñew ali ben na député bun kutoo jala muy yaalon koy baa loo kan samba be pare fii nekk nii mbe ñen dinkiraa mum fanan to jam daaw daaw serum ak ren ani ñinan fiñ toog bimbe siri ndaame uteena a fatata baake loolu yëpp développement la woo bee mu duwaalete soo amin soo duggee biir Banjul nii dunta Banjul saatee kono doo mun a dox te amuloo diversion ite dunna noo dulaato e man siloo taa yaa yelemandi pour e tambini dulaatoo lu tax loolu dalila jamala wo saw development bi e mbir banjul mota aka mulun ko yirwa mum be ke kam banjul sate kon wala wono a president jame musna wax ne president jamme ne ne ñim foko ku joge banjul dem ron dem bota banjul sate ko day funti day tata di nga ñewat banjul war nga regret ko wallahi nena bela fila kam rum banjul jang wara en nimisa wante ma nga president jamme ne bare mba fola president jamme ko man man ko wax ne ko nga ba fola ko man dewuma de nte de hani bi manta de maa ngi bakaw mbe bakaw maa ngi campement Banjul mbe campement Banjul saate kono parce que gis naa li xew fii parce que kuwo mu mbe Banjul kono ñaayaaje waa Banjul Banjul koon surtout ndaw yi surtout Fondenken seen tang la ñimmaa la ñantoole alaali Tees City Tees City laaj na leen seen boppa bu yàgga toujours mu def fi dëgga dëgga dëgga waa Banjul ndawi Banjul dañu war a toppaat li nga xam ne moom la président Jammeh moom bëgg ngeen def ko